jërëjëf Maguette euh, kon euh, Maguette Niang porte-parole association bi ëmb ambulancier yu Sénégal maa ngi fàttali ni yow da dawal ambulance ci centre de santé bu Mbacké bëgg ñoo xam déjà liggéey bi ngeen di liggéey solo si surtout ci jamono yu mbas mi mais laata loolu si Mbacké wala département ba na fa situation bi demee ci mbas mi. jërëjëf euh, maa ngi leen di ziare bu baax di leen nuyu di nuyu sama mbokk sénégalais yi di nuyu sama mbokk ambulancier yi parce que li ngay wax noonu. waral bokk na ci li waral sunu teew fii nii tey mbas mi booy boo mën ne ñi ci gën a sonn ñun la ñi ci gën a nekk ak jafe-jafe ñun la parce que ñun ñooy jege malade bi ca këram ba ci hôpital bi ci ñun lay mujj même bu génnee àdduna ci ñun lay mujj ñun les ambulanciers léegi comme li ma waxoon bërk démb ne ba noppi li war manqué dara matut dara matut Euh, protection dara matut ci ci wàllu liggéey mi dara matut ci ñi nekk sax des ambulanciers yi. Ah, déjà yaa ngi wax euh, yéen a jëlee malade bi seen seen kër transporter tout ça naka ngeen di. Euh, solo solo su ngeen di récupérer malade yi pour yóbbu voilà foofu laay wax foofu laay wax ne ci premier vague ba dañ doon joxe di kit joxe gel joxe tout mais actuellement nii ñu toll nii blouse bi ambulancier bi yor moom lay taale oto bi moom lay dem jëlee ji ko malade bi jamono jii ñu toll nii bii ñuy wax ne euh, troisième vague bii moom moo gën a graaw ci la ambulancier bi gën a ñàkk protection moom. vous exposé nga bëgg a wax. voilà c'est ça. mooy njeexital bi ci ci yéen euh, da ngeen am ay cas. Euh, si si si am na am na certain c'est-à-dire dafa am ambulancier dañu génn ci xeet woo xam ne. booy boo ma ne suñ leen doon wut ci ci ci wàllu mala dañuy jàpp ne ñoom ñoo gën a dëgër ambulance mm. ci xeet bi mu génn quoi mooy xeetu chauffeur c'est-à-dire pour tëral ko beneen affaire la chauffeur pour mu tëdd beneen affaire la léegi nag chauffeur moomu ci la ambulance bokk mais mbas mi laalu leen torop laal nañu torop am nañ ay collègues yoo xam ne jaar nañ ci ba génn si am na ci ñoo xam ne actuellement nii may wax ak yow ñu ngi tëdd est-ce que am ngeen xayma xayma ci ñaata nit ñoo tëdd ñaata am ambulance. loolu man aw ma ko. amoo xam non amu amaguñu ko. léegi ñaata ngeen sax ci réew mi yéen seen ak lim ambulanciers yi. fii sunu lim ambulanciers yi actuellement l' association moom on compte deux cent quatorze personnes lañu. Sénégal yi au niveau national waaw. Mhm. deux cent quatorze ñoom ñoo affilié ci biir ci biir. ñëpp affilié wuñu que am na ñoo xam ne ñu ngi au fin fond amuñu appareil digital pour mën a bokk fii nii. am na ambulanciers yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ci frontières yi Sénégal yi démb ci guddi bi may jokkoo ak yow téléphone rek maa ngi jot benn ambulancier boo xam ne mi ngi ngiroo ci àll bi 14 heures dafa ngiroo ba 21 heures. waaw ah, mais yéen nan ngeen ñu nangoo que euh, première vague bi deuxième troisième vague bi nga xam ne moo gën a virulent moo ëpp lu muy contaminé moo ëpp lu muy rey. yéen ci première vague bi ngeen amoon as ngeen di protéger pour liggéey mais troisième ñu bàyyi leen noonu te fi nekk moom moo a doy waar. loolu loolu première vague ba réer ma loo première moom réer ma loo moom Sénégal ñëpp la troisième vague bii ñu nekk nii jamono yii bi mu ñëwee am na structure sanitaire yoo xam ne jamono jii ñu toll nii carburant dañ koy ñàkk lu leer laay wax am na structure sanitaire yoo xam ne dañuy am problème mu am na ñoo xam ne. fay seen i seen i employé da leen te fi mu nii jamono jii ñu toll nii bi mu gënee metti ñu ne ci la état war na taxaw gën a taxaw doomu aadama yi ci la état gën a bàyyiwaat kii sénégalais yi ñu gën a nekk ci ay métti métti. mais balaa nga dugg ci payoor yi ak ndàmpaay yi ñu des ci protection bi. Hmm. est-ce que yéen dañ leen di forme au la dawal bi ak yi ni mel dañ leen di former sur les aspects disons euh, prévention pour ne pas dire sur les aspects médicaux mm-hmm. ngeen xam as tuut ci nan la ñu gérer malade ak nan la ñu aaree na ngeen di aaree seen bopp ci maladie yi tuuti protocole bi voilà loolu loolu dama ci dama ciy sawar a wax mm-hmm. ndax mm, fii la yam Dakar les hôpitaux de Dakar dañuy jël seeni ambulanciers di leen yóbbu SAMU SAMU di leen former mm. ak suma assistance mais ñun fële dañ lay fekk ci gare routière bi récupérer la ñëw andi la fii ñëw. ay chauffeur waaw dañuy jël chauffeur rek andi ko léegi nag xol xol bi ngay am soo àggee hôpital di doon doomu sénégalais am xolu yërmande bi nga xam ne moom sénégalais boo gis moom la amee léegi loolu moom moo la yóbbu ci dem ba àgg fii nga àgg ak ñoom léegi duutoo mën a deltu ginnaaw te da nga ciy mën duutoo ci mën c'est-à-dire normalement yow miy dawal amoo droit euh, participer ci prise en charge malade bi yëkkati ko c' est pas le cas parce que dans la réalité. chauffeurs yi seen bopp. dañuy ñëw di jàppale di yëkkati di ak yi ni mel. Euh, mais ci seen protocole normalement ndax yéen da ngeen war a euh, da ngeen war a bokk ci liggéey bi wala da ngeen war a des ci oto bi rek ñu indil leen malade ngeen déposer après dem. noonu ñun ñun ci su ci ci ci yoon li nga xam ne moom moo war a nekk mooy chauffeur bi moom. oto bi mën na ko génn mais kuy jàppale assistant ak assistant bi la. assistant di ko jàppale mm. war nga xam matériel bi war nga xam fan la nekk war nga xam fan lay tegee war nga xam kii moom mi mi nga xam ne moom mooy assister malade bi lu mu soxla bu la ko laajee nga ñëw yët ko ko beneen bi ci des mooy appareil bi yéeg ci oto bi di wàcc ci oto bi loolu chauffeur bi moom moo koy xam yow yaa yéegal malaat bi ci oto bi suñ ko tegee ci lal bi ba mu ñëw foofu loolu chauffeur moom mooy man yooyu moo ko war a def tamit. mais loolu dafa war a fekk ñu tàggat leen. formé leen waaw te loolu amul. non amul. amul moom fii à Dakar am na certain hôpital yoo xam ne ñoom ñu ngi jël seen i chauffeur di leen yóbbu di leen am na ñu fiy toppatoo seen i seen i seen kii mais am na ñoo xam ne boo génnee ni hmm. ñuy solo ni ñuy protéger woo. Euh, yéen tamit euh, dafa mel ni première soins sax yéen a koy joxe parce que yéen ay. teg malade bi ci. Euh, jeex na en plus de cela ñun ñooy malade bi test bi ñu ko defal dañ koy jox chauffeur mu jël ko dugal ci biir oto bi takk benn masque moom départ ak ak ak kii bi ak thermos mooy fii test test yi nekk. waaw fi test yi nekk. prélèvement yi. waaw pré sur de prélèvement yi dañ ne noonu lañ lay joxe loolu noonu lañ koy jëlee jox la ko yow chauffeur bi nga yenu ko noonu dem am na ñoo xam ne dañ am gant ku ci mel ni man day laaj gant. mais am na ci chauffeur yoo xam ne àgguñu foofa ah, parce que lan moo ko waral foofu njumtal état la. mais loolu tamit association tamit seen doon mooy ngeen yee seen i ñoom war leen rek xaar état mu leen di kii ngeen. loolu seen bopp non xam nga xam nga état wu Sénégal ni muy ni muy ni muy recruter la état Sénégal dañu lay wax du ñu wax loo mën ku la fi yabal. luy loolu. moom bi wax yow lan nga mën c'est-à-dire recommandation moom moo la fay dugal. c'est léegi nag léegi man man su fekkente ne man sama nijaay moo ma dugal ci hôpital bi di xaritu médecin chef bi. non man am na foo xam ne professeur Ndiaye wax na ko bëgg démb donc yaa ngi koy dëggal. man su ma suñ ma dugalee foofu am na loo xam ne du ko ñemee sama diggante ak sama kilifa googu donte dëgg lay doon ci man. parce que man dañ ma demal fee barab sàngam kii ma jëli tamit xamut ba xam man am naa compétence ba mu déet moom sama sama sama kilifa la jël. yow man bokkoo ci kaa boobu ñan xanaa. non yow sa compétence la du yóbbu sa district ba boobu. sëñ Niang yow chauffeur nga nekk Mbacké di ambulancier nan nga dundee feebaru mbas mi est-ce que réalité bi foofu eh, dafa gën a yokk ci sa liggéey est-ce que également eh, ci payeur yi ngeen di jot ci troisième vague bi par exemple li ngeen di liggéey eh, maanaam méngoog nag payeur yu leen di jot. loolu bokk na ci li tax association bi taxaw. kon yu sonn ngi ci àll ya yanaa dee am na ay bénévole am na ñoo xam ne dañuy yore ambulance ñu di leen fay journée soo yóbboo malade ñu fay la mille cinq cent soo amul malade amoo fa dara loolu am na dans le Sénégal. la non. non amuñu sax kon amoo contrat. yow chauffeur bu dëkk ci dëkk bi ambulance bi yow yaa koy yore yow lañ ko waa dëkk bi jox si c'était un poste de santé mais yow amoo fi salaire parce que poste bi mënu laa fay loolu la ñuy wax ñoom. léegi nag soo yóbboo malaat bi bu malade bi day dem Diourbel bu dee jógee par exemple naa jël sama localité Ndindi muy jógee Ndindi war a dem Diourbel ñu ne oto bi ambulance bi day fay malaat bi day fay 6000 francs pour déplacer woon Ndindi yóbbu malade bi Diourbel léegi ci biir 6000 francs yooyu oto bi day lakk 4000 yi 1500 yi moom la ñuy fay chauffeur bi su oto bi xëyee amul malade moom chauffeur bi am fa dërëm am na ñeneen ñoo xam ne les collectivités locales ñoom ñoo leen recruter mm. mise leen à la disposition des structures sanitaires ñooñu tamit la même chose salaire ba ñu am foofu ca mairie ba loolu la ñuy dese amul leneen lu ci tege am na ñoo xam ne motivation yi ñu doon wax ci première vague bi non ñoom gisuñu ko ñoom am na chauffeur yoo xam ne xamuñu ko am na chauffeur yoo xam ne fii ma toll nii ñu ngi toog jotaguñu seeni salaire parce que centre de santé yi ñu nekk amatuñu doole fay leen. centre yooyu tam du ñoom ñooy def carburant ci euh, ci oto yi hmm. non cest à état Sénégal ci boppam la la la nit mënut a comprendre seen i mbir parce que boo ñëwee Mbàkke la mairie moom mooy joxe carburant bi nga xam ne moom la structure sanitaire bi di fonctionner léegi mairie la comme comme comme comme sama mairie ba ca Ndindi nga dem Ndindi noonu normalement mairie ba moom bu ñuy voté budget moom ma ngay def loola mais bu dikkee ca ca ca euh, poste de santé ba mais moom yow soo fi indee malade da nga koy fayal. dañuy indi carburant boobu mu ñëw tege fi ak entretien wu oto bi ñëw teg ko foofu ci biir structure sa bi ñu boole ko teg ko feenee léegi wëlbati ko di encaisser nit ñi di encaisser les pour ñu fayal oto bi pour oto bi dem Diourbel est-ce que problème bi du problème bu complexe lii déjà au mm-hmm. statut mm-hmm. euh, des personnels mm-hmm. Euh, nan leen recruter la mooy seen relation ak kii bi. statut aussi ambulance bi parce que yaa ngi wax ay ambulance yoo xam ne xam nga benn communauté diaspora par exemple bu jëndee ambulance mettre ko à disposition du village euh, euh, du du centre de santé wala du poste de santé du village wala du centre de santé de la commune et cetera bu boobaa Euh, loolu tam day poser day poser beneen euh, question mais leneen li moom mooy kan mooy war a fay xam nga état boo waxee état day day englober lépp mais structure de santé yi je sais que à un certain niveau à l'époque amoon na les comités de santé je pense voilà le nom a un peu changé je pense euh, ñoom ñooy gérer ressources yi et ñoom ñooy fay genre affaire mooy mooy seen taxawaay et puis est-ce que ñu ngi def seen liggéey nu mu waree parce que bu nekkee ni malade ngi fay Euh, ba pare état bi à travers ses mu ngi indi ndimbal bi nga xam ne lu mu néew néew néew mu koy def ci structure de santé bi xaalis boobu est-ce que warul jël en charge euh, un temps soit peu motivation yi ak fayar ak payor bi. foofu nag la ñuy waxee foofu la yëf yi nekk euh, état daf lay bu mm, mm, bu affecté jël par exemple comme Ndindi ñu affecté fa le le l'ICP le infirmier chef de poste bi. Mm. moom mooy gérer. poste de santé bi moom ak sage-femme bi fi nekk ak ñeneen yeneen employés yi nga xam ne mairie yi ñoo koy jàppale wala poste bi moom moo leen di fay léegi ICP boobu moom moo yëri foofu mais du tax moom mu am baat ci oto bi hmm. léegi te oto boobu oto bi ñu indi noonu du oto particulier boo xam ne ci la ñu war a dugg di dawal di dem ambulance la ñu wax ne malade lañ war a yàpp ci biir structure sanitaire fi la fi la war a nekk mais dañ ko ci dañ ko dañ ciy privé les les man gis naa ICP yoo xam ne ñi mu ñoo able seen oto. Ah, non ambulance kay pour transporter malade la wala nga ko defee leneen lu dul loolu. non cest pour transporter malade la mais soo demee ci àll bi laa la wax gis naa ambulance yoo xam ne ICP bi nga xam ne moom moo yër poste de santé bi amul droit ne ambulance bi yóbbul malade bi. kan moo am droit bi. borom dëkk bi la maire. lii may wax nii lu leer laay wax. démb ci bëccëg démb ci ngoon. qui est le président du comité de santé. si démb ci ngoon gis naa gis naa un chauffeur bu jàkkaarloo ak un médecin chef médecin chef bi ne ko faites ça mu ko non duma ko def il faut appeler le maire. léegi man yaakaar naa le médecin chef du département kooku moo yilif moo yilif tout tous les matériels. moo si pexe je pense que y a beaucoup de problèmes. mais yéen lan mooy seen proposition qu'est-ce qu'il faut faire euh, mi delluwaat euh, ci normal. non alerté. alerter pour que les Sénégal bi savoir ñun fan lañ toll ñun ñoo ngi bëgg a dee léegi amoo fenn foo ko jooyee le ministère buy recruter xam na ne am na ay bénévole yoo xam ne ña nga toog ci àll ba ñoom ba mu mettee ñoom ñu téye woon oto yooyu non fële leen di bàyyi recruter fii jël affecté foofa jële xale Dakar yóbbu ko Nenefisha mu dem Nenefisha def fa un mois deux mois du fa mën a toog buy dellu si waat Dakar ministre du ko yëg ci DRH lay jaar. mu lijjanti ñu delloo si ko Dakar soo demee ci hôpital yi Dakar yi am na ci hôpital yoo xam ne soo demee fekk fa dix chauffeurs te deux ambulances la ñu am. léegi nga dem nga dem nga dem ci poste de santé yi ci àll bi ngay gis ñoo xam ne amuñu chauffeur ñoom. ah léegi léegi proposition mi ngi noonu mooy ñu réaffecter. voilà rationaliser les ressources voilà de euh, déjà ci loolu nga wax noonu. loolu déjà benn proposition la. léegi en termes de statut est-ce que dafa am lu ngeen di proposer ci changement statut yi wala. sii am na lu ñuy proposer ci changement de parce que ambulancier bi ñu nee ambulancier nga yow soo demee bu ñu lay recruter dañ lay recruter comme chauffeur bara kii euh, nu ñu ko waxati salaire chauffeur moom ngay am amul am na ñoo xam ne am nañ ko parce que am na ñoo xam ne am nañ nepaat am nañ leneen ak leneen ak leneen ñoo c'est par des recrutements de l'administration bi nga xam ne ñoom ñoo ko doon de ñoom politiciens yi di ko def seen biir ñooñu dañuy am loolu mais ñi nga xam ki nga xam ne chauffeur bi nga xam ne dañ koo jëlee moom dañ koo jëlee dañu wax conseil départemental ne ko dëkk sàngam amul chauffeur conseil départemental bu yóbbu bu fa yóbbu chauffeur di wax sax affecté day wax mise à la disposition de tel nit lay wax moom jëmalewu ci structure de mise à la disposition di médecin chef nangam nangam léegi yow chauffeur bi joxoo ko joxoo ko structure bi nit nga ko jox léegi moom état amatu ci accès ci moom léegi même la préfet pour mu jot ci chauffeur boobu noonu day day day neexal euh, ki ko jox le préfet du département pour mu jot ci chauffeur boobu liggéeyloo ko te normalement tout ce qui est su nekkee ci àll bi yaakaar naa préfet moo leen yëre comme les enseignants et d' mm-hmm. léegi nag mais chauffeur moom bokku ci. parce que li koy waral mooy état bi bu fekkante ne moom comme ni des fois ñu jël ay ambulance yóbbu ko ci structure santé ñu xam ni ambulance bi état bee ko jënd loolu préfet bi mën na ci am euh, yi kilifte mais comme ni Souleymane wax des fois ambulance yi ñi koy jënd voilà voilà léegi nag léegi nag léegi nag ONG boobu tamit di di mayee bi di joxe ambulance bi c'est-à-dire état mën naa def lu gën a la région de Diourbel y a un médecin chef de région bépp ONG boo xam ne damaa départ ne man damay dimbale ji Ndindi su ma andee oto bi dama ko yóoti waa Ndindi naa ko yóbbu médecin chef de région léegi le na a lu leen fa andi kon loolu ay piste de solution la mais laaj bi na doon laaj dëgg ba parce que ñu ngi ci troisième vague bi ah. nit ñi di faatu yéen ngeen wax nga koo malade des fois ñi faatu sax yéen a leen di yóbbu et cetera naka ngeen ko dundee yow mi xam yaa ngi ci teg sa bët chaque jour non dund bu metti dund bu jafe surtout nag fële ñun c'est-à-dire euh, Covid bi fii ay nit a ngi fii mais ñun fee dañu suñu dafa bind dafa am loo xam ne daf koo def ci àll bi def ko ay secteur li li li ngay mën a dund ca Kaolack non mënoo ko dund Touba Touba yëguñu ne ba léegi léegi nii laa wax ni ba tey non pour nga sensibiliser nit jaral na ko ngeen xeex moom daa doon takk masque bi ñuy wax bi ñuy wax delloo vaccin yooyu noonu ne ne ne delloosi nañ waaw dix mille vaccin yooyu ñu doon wax ne delloosi nañ ko non pourtant ay nit ñoo doon dox ci mbedd mi y avait la police y avait la gendarmerie mais nit ay taxaw ci mbedd mi di wax lu kenn mënut a dégg te kenn du ko teg benn sanction ne bu kenn ñàkku wa lànk leen bu leen ñàkku lànk leen bu leen takk masque kenn mënu noo tee toog barab sàngam léegi police nekk fi gendarmerie nekk fi mais kenn du ñemee àddu ci dëkk boobu. mais loolu yéen ñi nga xamee ni yéen ay gis conséquences directes yi. waaw daf voilà daf lay daf lay daf lay def problème yow yow mi yow parce que ñenn ñi dañuy wax ne loolu amul. Mhm. léegi yow nga jàppoo malade teg ci oto yóbbu départ ak moom jëm seen moom ndakaar mu am problème mu faatu ci yoon wi yow nga teg loolu sa bët. léegi soo dégg ni ngeen teg seen bët ci ñuy faatu moom boo ko doon xayma bari na trop surtout nag semaine bii nii passe hmm. semaine ñaari semaine yi ñu gën nii non Mbacké Touba cest à ñoom nag ñëw ñu ñuy seetlu loolu ñoom. Hmm. ñooñu moom lu ñëw ñu ne moom waajee. de de de waaw moom dafa waral na dee la ñu daal di wax mais ñoom seetluwuñu loolu mais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy fréquenté foofa di yóbbu nit ñi di dimbale nit ñi. ak di jàppale doomu aadama yi di leen génne seen maladie non soo gisee li ngay gis jamono yi ñu toll nii ak la nga doon gis bu njëkk bokkatul. ah kon de lancer l'appel. waaw suñu euh, centre de santé bu Mbacké da nga doon toog presque deux mois trois mois doo gis dese ci biir. léegi presque chaque nuit nga gis arrivé de set balaa bëte seen nga génne. loolu nan ngeen ce que neex na dëkk quand xam nga nit ku nekk ak la mu tàmm. man fi ne nii pour ma yendu sama kër waaw man man pour ma yendu sama kër nii problème la man su ma xëyee su ma liggéeyul sax su ma amee permission sax maa ngi hôpital man man ma continuer hôpital moo ma gënal may nekk sama kër. loolu te loolu jafe-jafe la léegi ni ma nekkee woon hôpital tey yendoo ko ak jafe-jafe yooyu ma fa yendoo ñàkk protection daal lépp lu ne mën ma faa toppee ci maladie léegi loolu laay yóbbaale waat sama kër cest à am na loo xam ne seetluwuñu ko mais am na ravage yu def yoo xam ne nit ñi bàyyiwuñ ci xel mm-hmm. mooy chauffeur yi les ambulanciers ñi ngi ñàkk parfois seen i seen i njaboot te li leen koy yóbbee mooy ñoom ñoo koy jëlee ca structure sanitaire ba indi ko ci kër gi te duñ ko yëg ñoom mm-hmm. loolu mu ngi daal ay yee ngi biir Sénégal yoo xam ne contrat mosuñoo xam lan la ñuy amee contrat ñoom amuñu dara takkuñu dara kenn jàppalewu leen ci dara loolu état Sénégal moo koy def. mais yow ci wàllu liggéey ci ambulance est-ce que da la gën a def nga nite est-ce que ambulance da la changé. waaw daf ma changé man bu baax a baax. Hmm. daf ma changé ambulance daf ma changé parce que man j'étais dans l'administration comme contractuel laa doon def ci ministère yi man nekk doon naa dawalal Bakar Dia. Mm. quand il était ministre waaw ah, bi muy nekk ministre des sports j'ai été avec lui yow ministère de l'information porte-parole du gouvernement en plus de ça sama famille ñëpp ñi ci ëpp ñi ngi ci woon ci administration sama papa chauffeur la woon s'appelle Socé Niang c'est un ancien député la woon chauffeur oto rek la xam ñun <laughs> oto rek la ñu xam léegi nag bi ma bi ma bi ma dikkee nag santé ambulance moom daf maa changé carrément def na ma nit ci wàllu bëgg sama bopp ci ci ci ci faju def na ma nit ci wàllu toppatoo doomu aadama bu ma gis mu am lu koy metti mhm. mais comportement tamit maanaam dawal côté ambulance dafa am lu ñu xaar ci moom ci wàllu comportement waaw waaw a ngi ciy góorgóorlu ci sensibiliser waaw ñu ngi waaw du ma du ma eggale mukk te gërëmuma sami national le chef de parc de sami national ak benn booy bu ñuy wax euh, Fall Sami xale yooyu ñu ngi def des formation en ligne via les chaque jour on a chaque jour ñooñu gis naa gone yoo xam ne tey boo demoon boo demoon ba fongolim bi nga laaj leen mat laa kokki ñu ñu wax la lan mooy mat laa kokki non bu njëkk boo ko mosaan àndaale ak ambulance bi ambulance médicalisée bu ànd ak matériel complet da nga ko doon indi yóbbu ko ci àll ba ñu génn bagage ñëw sànni ko fële hmm. jël bàyyi ci laal bi kese mais justement pour faire oxygène hmm. oxygène hmm. oxygène amutoon benn chauffeur li may wax lu leer naa ñu benn chauffeur boo xam ne du chauffeur bu nekk Dakar bu nekk ci biti bu xam nan la ñuy installé oxygène ak ñaata baar ngay génne pour dem Dakar. nan lañ koy consommé léegi xale yi ñu ngi koy xam via le SAMU national. Mm. Mm. ñooñu duñu duñu duñu noppi mukk di cest à léegi nag dañ doon ñaan état su doon ne day day dimbale ambulanciers yi. Mm. non foofu bunt la pourquoi pas. formation waaw service bu nee da gis ñu ne secours yeeg yooyu service bu ne da ngay dégg ñu ne renforcement de capacité de tel service <laughs> non mais doo dégg ambulancier moom ñu renforcer seen capacité pourtant oto bi ngay dawal man oto bi ma jàngee oto man ci car rapide laa jàngee oto fii Dakar dawal 404 oto yii ñu am léegi c'est des direction assistées waaw ah, waxal kon borom kat car euh, borom car rapide yi euh, parce que c'est c'est un point aussi j'imagine que yéen ci yenn zones yi vous n'êtes pas confronté au même problème mais circulation bi à Dakar ah avec euh, les ambulances ñoom sareet yi la ñoom bu dee c'est partout dans Sénégal c'est-à-dire tamit la fa nekk mooy du chauffeur moo fa nekk y avait pas des écoles de formation pour conduire amu fa man ab gir laay doon bu nekkoon service de doon fa liggéey retraité li jël sama benn bureau teg ko foofu di wutal nit ñi maanaam non fi Souleymane di waxee mooy priorité maanaam. mooy waaw loolu ci loolu laay wax nii. léegi nag xale bi xamul lan la code de la wax am permis de conduire yéeg ci kaw tali bi di dawal est-ce que kooku moom mën naa xàmmee ambulance bi ak ak ak sànq. non mënul ne c'était ça léegi nag lan moo des mooy y la sensibilisation au niveau national pour tous les chevaux du Sénégal. chauffeurs yi tamit ñu xam ne ki yor ambulance bi oto bii nii mu taal gyrophare taal si sirène li li ko tax a def loolu. te yow sa oto am ko. urgence la. léegi yow bàyyi bàyyi ko xel parce que nit ñi non ñeneen ñi dañuy wax yeboo dara. yeboo dara or l'ambulance. voilà même boo yebul dara yaa ngi jël mën na nekk ngay jël dara ci biti. ambulance daa warul ne ci biti. ambulance su génnee dafa war a tuuti voilà. après il faut reconnaître que la situation a beaucoup changé moo tax ma bëggoon ko interpréter parce que yàgg na ci ambulance. il euh, y a il y a quelques années quelques décennies euh, si euh, wax dëgg yàlla ambulance tumuranke woon na Sénégal lool lool lool lool lool lool tey jii situation bi il faut le reconnaître ça a positivement changé on a des ambulances boo nekkee ci circulation bi ambulance rek ngay dégg ça aussi il faut le le oui non loolu loolu tamit il faut ñu remercier état ñu sant leen ci bu baax a baax surtout nag la zone du nord le Fouta. le Fouta bu njëkk da nga leen doon yërëm dama doon gis ambulance benn dëkk moo koy am dëkk boobu pour mu déplacer wu ak malade boobu noo cheveux lu lay daj. pour doog a si actuellement ñu ngi ak des véhicules climatisés Fouta. noonu ni mu mel noonu Fouta noonu la mel ci yeneen région mais nag mais nag mais nag loolu loolu am noonu tamit loolu am noonu tamit voilà léegi chauffeur yi léegi li nga xam ne moom mooy importance bi mooy la formation ah, dimbali chauffeur yi pour ñu am ah, formation Maguette dinañ dinañ ñëwaat euh, comme docteur Ndiaye xam na fan yi moom dafa nekk ci xat-xat moo tax dañ koy teel a yeewi ah, mhm. docteur ñu ngi lay